salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk tey nag ñu ngi fii ak suñu papa Iran Ndao ñu fas yéene sekk ak moom euh, waxtaan ci lu jëm rek ci li nga xamante ne si nag moo di waajtaay gi ak élection yi nga xamante ne si nag moom lañ daal di dem war ko amal rek ni ki ñaar fukki fan ak euh, ñeent ci weeru fi mars bi nga xamante ne si ci leen nekk mu nar a tombé ak li nga xamante ne si na moo di koor gi papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di ñaanal ñiy seetaan télé bi yëpp yàlla defal leen jàmm ak suturu yéen itam yàlla yëkkati leen defal leen jàmm incha allah. Euh, tout d'abord dañuy daal di wax ci li nga xamante ne moo di trophée euh, ak wax ak euh, yoon moom. ni ko yàlla waxee rek nee ñu du yéen a ko njëkk a def am na ñu leen ko njëkk a def te ñooña dañ koo def na ma leen ko sante kon yéen itam bu ngeen koy def def leen ko ni ma ni ma leen ko sante kutiba alaykum siyaam kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaqun siyaam waaw yàlla nee na maa waral ci yéen koor comme ni ma ko waralee woon ci ñi leen jiitu koor nag mën naa am ku koy def da ragal yàlla ndax boo xiifee mar dugg sa néeg ubbi sa congélateur fekk fa loo naan fekk fa loo lekk te ñemewoo ko lekk ñemewoo koo naan te police taxawul kenn taxawul kooku ragal yàlla la moo tax mu ne laallakum na kon mën naa am ragal ngeen yàlla kon nag koor gi bu dee ñëw nañu commencé foofu bi ci des mooy bu ñu séentoo weer wi gisuñu ko nañu matal weer fan weer wi fanweeri fan baralu waaw bu fekkee ne séentu nañ ko gis ko nañu woor ñun ñëpp ndax gis nañ ko buñ ko gisul bu ko ñaar ñu maandu gisee nañu woor bu ko mbooloo mbëri gisee nañu woor man na ku ko gis wax ma ko Sénégal nag loolu moom amu fi ndax Sénégal moom loolu moom jeex na fi man kaa di wooragul duma woor di woor na naa woor rek loolu fi am waaye daal man ku gis weer wi avant tout wax ma ko soo ma ko waxee rek ma woor man bu ma ko gisee rek ma woor bu ma gisul bu ma ko gisal ma parce que loolu laa xam waaw 656 92 65 sama numéro la ku ci gis na ma ko boo ko gisee rek ma waaye daal loolu mooy charte koor yi charte koor moo di na ko ñaar ñu maandu gis walla mbooloo bari gis ko wala yéen ñëpp ngeen àndandoo gis ko su ngeen gisul ngeen matal baraxlu fanweeri fan mm-hmm. su baraxlu matee fanweeri fan nag ñu woor voilà loolu mooy koor bu koor gi ne bu ñëwee bis bu jëkk bi ngay bis bi jëkk bu weeru wi feeñee ci guddi nga yéene woor balaa fajar balaa fajar nga yéene woor waaye boo wooree ti yéenoo amoo koor amoo koor dangay ngay yéene da nga naan fas naa yéene woor weeru koor yi ngir yàlla waxal loolu fas naa yéene woor weeru koor wi ngir yàlla soo ko waxee jeexal waaye boo wooree ti yéene woo amoo koor kon da nga yéene balaa fajar nga yéene woor bés bu njëkk dootoo yéene waat nag doy na benn yéene boobu doy na lu dul nga feebar dog boo dogee boo bu sa feebar wéree booy wooraat da nga yéene beneen yéen ndax yéene bu njëkk ba yàqu na waaw bu dee jigéen yor ngànt bu dee ku yor ku feebar ku mën a doon rek yéene ba yàqu na waaw kon da ngay yéene waat beneen yéene neen fas naa yéene mottali koor gi loolu ngay wax boo ko defee bu fekkee ne séentu nañu weer yi gisuñu ko boo xëyee bul ndékki boo xëyee taaxee lu toogal tuuti rek xaar boo toogee tuuti xaar eh, teg sa teg fële ndékki yëpp boo toogee xaar nag ba nga xam ne eh, dix heures jot na onze heures waxuñ fenn weeri feeñ nga nga daal nga daal di ndékki boo tegee sa ndékki nag bay bëgg a ndékki dégg ne weeri feeñ na ajal ndékki la fële def ko xëdd baa nga def ko ndogu baa nga may ko xale yi waaye bu ko lekk boo ko lekkee rek am nga problème doo ko lekk waaw da nga teg fële ah, bañ koo lekk loolu daal boo ko defee da nga do sa moom kay tànk dog jotul lu la fi dar rek ba nga ba nga dog koor ga koor ga yàqu hmm. waaw. moom bu dog jotee nag bu fekkee comme par exemple dañ ne dañ ne koor gi dix neuf heures vingt minutes la ñuy dog par exemple rek laa wax nga dem dix neuf heures moins moins cinq minutes wala moins deux minutes wala moins trois minutes nga am rek am ngànt sa koor yàqu dangay da ngay fay bés boobu koor googu moom yàqu na da ngay fay bés boobu waaw bu la ngànt dikkalee rek fayal bu la ngànt dikkalee te dog jotu rek fayal mm-hmm. waaw ko defee noonu ngay def waaw dañu gis ñu bëri suñu moroomu jigéen ñi dañuy négliger fay koor ñàkk fay koor lan la si yàlla. ñàkk fay koor gi koor gu matul la rek koor gu matul nag yàlla du la ko fay yàlla moom lu mat lay lay lu mat sëkk lay fay parce que yàlla du gone du xaleel du dara yàlla magum jëmm la mu ñu bind ñun ñëpp sant nu ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imuuni ma bind nit ak jinne pour ñu jaamu ma kon nag nañ jaamu yàlla ci ni ko bëggee su ne weeru koor nañu woor weer wi ba mat sëkk ku ci ngant dikkal bu sa ngant jeexee nga fay la dese waaye boo ko deful amoo koor amoo dara mhm. euh, alors li muurum koor ñi amul dara ko war lekk nañ ko jox ñi amul dara ah, ñoom ñi amul dara rek nañ ko lekk miskin ci la bokk faqee ci la bokk ñu ñëpp ci lañ bokk nañ leen ko jox muurum koor mi buñ neweeru weeru koor nag des na ñaari fan ci lañ koy joxe wala des na benn fan waaye daal bu desee ñaari fan nañ génn muurum koor mi jox ko seeni borom jox ko ñi nga xam ne amuñu dara ñàkk nañ ñu jox leen muuru koor yi ñu daal di ko koy négliger ko négliger doo am koor. doo <laughs> am koor xam nga yàlla yàlla lu mu tëral rek ah, am na yoon. parce que buñ la ne muuru koor na nga ko joxe nga bañ ne doo ko joxe te woor kon bëggoo sa koor xanaa koor moo gën a métti muuru koor na koor a gën a métti soo wooree woor weeru koor yi ba mu jeex nga nga bañ a génn muuru koor ti tey nga ko am nga ko dañuy aj sa koor fële ca kaw lañ ko aj suñ ko fa ajee tànk génnee goo muuru koor duñ ko ajji soo génnee muuru koor na ñu ajji ko yóbbu ko ci koor yu baax yi Oustaz Wor ak voyage yi ku ne xam na élection yi mu ngi ñëw campagne yi te souvent reporter dañ leen di yónnee ci ci terrain bi nu mu bëggoon a xam ndax voyage bi dafay yàq góor gi wala. déedéet bu fekkente ne mat na 48 kilomètres sañ nañoo bañ a woor waaye dañ koy fay de. yàlla nag nee na wa anta suumoo xayrun lakum ngeen wooroon daal moo gën a jéem a woor moo gën ngeen bañ a woor. ñu ne ko lu tax mu ne fay gaa tax booy fay yow rek ngay fay nit ñi lekk di naan nga leen di gis day métti ci yow kon nag woorandoo ñëpp dogandoo ñëpp moo gën wa an tasuumu xayrun lakum bu ngeen wooree moo gën waaw lan nga xam ne ñoo di euh, politiciens yi ndax nag euh, li nga xam moo di campagne yi ci biir koor gi lay nekk ak euh, élection yi woor bi ak mbumbaay bi te ku ne xam ne période campagne da ngay dégg mbumbaay tëgg yeeg fecc yeek way yi mais lu dul koor sax tëgg fecc moo jaadul tëgg fecc ci boppam moo jaadul yëfu ju du yëfu jullit man na ñoo campagne rek ne dañu dama bëgg suñ la mayee may baax na waaye bu ca tëgg amee ak euh, mbumbaay ne la wóor na kenn wóorul ci ñooñu ñooñu wóoruñu euh, yow mi jiiti nit ñi ne nga xam ne kenn wóoru ci yaa gàddu lépp kon da ngay fexe wax leen ñu woor bu ko defee nga woor ngeen dem ndax itam wooteel leen mag jarul bañ a woor hmm? soo demee nag ba nga xam ne voyage bi bëri na mënoo woor mënoo ko boole koor nga dog boo woor bu paasee nga fay waaw nga fay sa koor hmm. yaakaar naa reporter nañ dégg loolu parce que fan yëpp loolu la ñuy waxtaanee. ñu wax aussi ci loi d'amnistie bi nga xam ne euh, voté nañ ko keroog foofu ci assemblée te ñu bëri euh, nag euh, ànd ñu ci ñu bëggoon ci am sa gis. luy loolu. Euh, mooy loi bi nga xam dañ ko voté foofu ci assemblée ngir jéggal ñi nga xam ne jàppoon nañ leen ci manifestation yi amoon depuis atum 2021 jàpp atum euh, février 2024 bi ak aussi ñi nga xam ne dañoo luubal alalu réew mi ñu ko mën a waaw de euh, xam nga yéen la daloon waaje ca campagne yi moo leen dal rek waaje dafa dafa ne ci campagne yi oto bañ bañ duggoon këpp waaw oto ba këpp ba oto ba këppoo ñu war ci ñu war ci kaw ka war ci kaw dañu waree ci kaw am am ku ñëw ne euh, xëcc leen ñi ci kaw bàyyi ci suuf mu ne ko xanaa dañ laa warul <laughs> waaye yéen xanaa dañ leen a tëjul baa ñu tëj seen mbokk moo tax ngeen wax loolu kuñ baal kay dara nekku ci nañ leen baal rek waaw nañ leen baal waaye Sénégal dafa naqari soo balee ñu ne wuy kee ngi lekk xaalisu réew mi ñu koy bàyyi waaw moom buñ ko bàyyiwul du fay xaalisu réew mi du ko fay kon nañ ko bàyyi rek di nekk ci kaso bi day day day xatal foofu rek li gën daal ci président mooy mu jéggal leen doog a dem na leen baal doog a dem ku àndul ci baal gi nag la daloon waajee rek moo la dal mm. dañ laa warul rek kuñ tëj da danga da nga ñu génne la ku kun tëj sa mbokk da nga bëgg ñu génne ko. kon nag kon bëgg leen ñu génne nii ñii nag dara nekku ci. est-ce que jotul ñoo xam dëgg ba pare parce que li ci xewoon bëri na ñu bëri gaañu woon nañ ci ñu bëri seen ay biens ñu daal ko si woon yàq est-ce que jotul balaa ñuy baal nit ki ñoo xam euh, fan la dëgg féete ba pare. fa dëgg féete duñ ko xam de. Ah. dëgg fu féete mm-hmm. dëgg ci boppam moo amul. Mm. dëgg ci boppam moo amul. Mm-hmm. dëgg bu amoon dara du xew. pour dëgg amoon dara du xew bu buñ doon def dëgg dara du xew waaw waaye bu ñuy wëri dëgg duñ gis dëgg parce que boo laajee nit ki xam nga nit ñiy tëj ku ci dégg woon ba ñu laaj la nga ne wax dëgg yàlla lii maa ko def kon jeex na lii maa ko def jeex na waaye da nga fay dana la jaral nga waat ci alxuraan waat ci tiir yi waat ci asamaan waat ci yàlla ne man dañ may rey waaye du man fekk yaa def loolu yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim ñu ngay wax kat loo xam ni nekkul seen xol ya waaw ndax la ñuy wax nekkul seen xol yi loolu doxul ko bu fekkoon dëgg am na nag dañuy doxal dëgg waaye dëgg amul ndax ki nekkul ci dëgg danaan ci dëgg la ne ki nekk ci dëgg ki nekk ci dëgg moom itam ni ci dëgg la ne waaw loolu loolu doxul waaw kay ci ko gi dañuy gis rek comme jeex ak euh, copains ñu souvent ñu naan dañuy saison bi. waaw loolu euh, parce que dañuy tëj saison bi dañuy saison bi foo ko yow li ngay def doxul. parce que toute saison euh, ci ci weeru koor amul. ndax copain copain lan da nga daan seen far yi dañuy tëj weeru koor yi dañuy tëj seen euh, euh, weeru koor yi ci seen far yi bu ko defee ñu ñu fan bi mujj ñu mooy ko yàlla njaalo ko caaxaan ko ba kontaan doo ko bàyyi bu bu weeru jeexee ñu ne dañ koy ubbi waaw tëj saison ubbi saison tëj ko ci mooy yàlla ubbi ko ci mooy yàlla tëj ko ci njaalo ubbi ko ci njaalo loolu doxul nit dafay xam ni jullit la mu ñu xam ni jullit nga aussi ñu xam ne nit nga ku nite waaye nit ñi ko nit ñi kenn xamul lu ñu doon boo nekkee nit ku nite am na loo xam ne da ngay demee calcul calcul ngay demee waaye boo di nit simple nga rek yaa xare yem yaa xar yee yem yaa bëyee yem yaa nag yem parce que xar moom li mu bëgg lan la lu mu lekk lu mu naan fu mu tëdd jeex na loolu mooy mooy wàllu nit waaye ku niti nag euh, dafay dafay dafay calculer lu bëri am na loo xam ne doo ko lekk am loo xam ne doo ko naan am loo xam ne doo ko sol am na yu bëree bëree bëri da nga koy da nga koy moytu. Mm. waaw loolu moo ci nekk. koor gi ak yàqante bi parce que souvent gis ci réseaux sociaux yi ñu bëri dañuy nekk ku nekk loo xamal sa moroom ci lu bon euh, nga wax ko surtout nag jigéen ñi ñu ci nekk ñeen ñi tamit ci commentaire yi euh, nekk rek di wax ay commentaire négatif lu ñaaw la ñuy wax euh, tey lan nga ñu wax ci loolu. ah lu ñaaw de yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg a wax lu ñaaw ci deri nit ñi. danaa leen mbugal fii ci àdduna te buñ dee ma duma leen waaw ñi nga xam ne dañuy wax lu ñaaw ci dëri nit ñi danaa leen duma fii danaa leen duma fële wax ju ñaaw baaxul parce que nit bu fekkente ne danga xam lu ñaaw ci moom danga koy nëbb waaw boo xamee lu ñaaw ci moom suturaal ko waaw gis nga koy xaawi sutura nit ñi sa sutura dina ma sa xaawi ko mm-hmm. xaw ma kañ lay doon na waaye dina ma sa xaawi ko kuy xaayu sutura nit ñi di enregistrer nit ñi di yóbbu seeni i enregistrement di yóbbu fu ne bés dana ñëw su sutura xaawee ko te doo ci man dara ne nañu nañu suturaal seen bopp suturaal nit ñi kenn ku ne nga xool ne tey buñ ma waxaloon lu bon mu naqari ma kon doo ko waxal nit kon doo ko waxal nit voilà waaw loolu loolu baax na parce que itam euh, bu ñuy sargal jigéen njàmbaar gaa tax waaw njàmbaar ga mu def moo tax ñu koy sargal am na jigéen ñoo xam ne kenn du leen sargal ndax ñoom caay-caay ga ñu def a tax waaw caay-caay la ñu def lu bon la ñu def lu xaraam la ñu def loolu rekk leen neex nag waaye ñi nga xam ne dañ doon xar te nekk comme jigéeni ñi wàllu mbooj yëpp mm-hmm. ni ñu meloon noonu la am na jigéen ñu mel noonu mm-hmm. Momy Seck jàmbaar la woon jàmbaar piir la woon ndax moo doon directrice télé bi mm-hmm. xam nga loolu ku dem ba doon ko jàmbaar ko parce que jiiti ay nit dafa jafe kon na boo demee ba jiiti ay nit dëgër ca nekk ca koo xam ne ku ñëpp bàyyi xel la ah kooku jàmbaar la kon li waa seen TV de baax na loolu dañ leen ci sant di leen ci gërëm waaw mhm. ah, tas am na solo ba tey ci mbirum sargal jigéen euh, ñu jéggi ci ay scandale ay waxu audio wala waxtaan wax yoo xamante ne ay kilifa ñoo ko ki nga xamante ne mooy Aïssatou Diop Fall ràññee ci réew mi ñu gis ko ci benn live mu ci waxtaan ak nga xamante ne mooy Farba Ngom ba ñu si dégg ay loo xamante ne maanaam euh, ay kàddu yu xaw a euh, yoo xam ne boo déggee daal sa nopp di nga di nga di nga taf sa nopp ci kilifa ci mag ñu wax yu wax yu mel noonu ak ak kuréel yu mel noonu waxi lan waxi lan la. ma yegg ji ah wax yooyu itam man kay boo may laaj danga may laaj lu leer danga naan ma Farba Ngom nee na nangam wala ay Aïssa Diop Fall nee na nangam ma wax la ne yàlla nee na nangam waaw kay. ci ci ci liñ dégg bokk xam nga ndax ba xam audio yi dañoo dégg ñu ni Aïssatou Diop Fall di ko wax di ko woo woo euh, kii Farba ne ko soo ma seet naa la naa la juutal. seet soo ma seet see. naa la juutal waaw. ah waaw mais loolu loolu loolu loolu loolu loolu garaaw na. bu fekkee ne waxi farba la. waru koo wax su dee ay sëtu jub faal waru koo wax ñoom ñaar ñëpp ku ne am na loo doon ci réew mi. Mm. ay sëtu jub faal am na lu mu représenté ci réew mi. lu rëy rëy rëy man jël na ma ay yoon. Mm. waxtaan nañ ay yoon. xam naa ko bu baax a baax a baax. Mm. waaw farba ngoom xaw ma ko. moom xawuma ko ndax miinantiwuñu waaw miinantiwuñu benn yoon daal laa mas a ji ji gisee moom booba mu nga nekkoon xawma waaye yow waaw daaray Maram Fay Sàll ji bañ koy ubbi keroog euh, Farba dafa euh, am na kum fa saaga kum fa ne ko yow billaahi bu ma bu ma bu ma bu ma moytuwul boo ma moytuwul dinaa la nangam tàng ndax yow yow bëggoo Macky Sall te fu Macky Sall wootee nga ñëw di jël alalu jàmbur ti bëggoo ko man maa fa taxaw keroog wax ca calmer ko booba de xam naa Farba Ngom mm-hmm. bu fekkee boobu la kay boobu xam naa ko moom waaw waaye bu ne bu dul boobu na xaw ma xaw ma ko. waaye waaye boobu na xam na wax ju ñaaw baaxul ku ne xam na ne baaxul wax ju ñaaw baaxul waaw la laa yuhibbu llaahu al-jahra bi suu illa man yàlla nee na bëgguma kuy siiwal lu bon lu dul kuñ tooñ kuñ tooñ nag bu la neexee buñ la waxee lii nga wax la le waaye buñ la tooñul defuñ la dara siiwal lu bon bëgguma ko man yàlla loolu la yàlla wax Ah, laa yuhibbu llaahu jahra bi suuy illaa man zulima voilà. Mm-hmm. ay kilifa ay ñoo xam te ñu di dañ di topp di leen siiwal suñu wax xale yi nga xamante ne bëgg na ñuy def. yi nu ñuy def lu ñuy def du du ko du ko du jot nga roy ko. da nga yow kay xale yi ñoom ñooy seet seen yoon xale yi xale yi nga xam ne boo leen gisee dañ naan waaw lii nuñ koy waxee lii mag dana ko wax. waaw lu mel noonu kooku dana roy kooku kooku du ko roy ki ngay roy kay mooy koo xam ni mat naa roy waaw kay ci lu baax waaye doo roy lu bon lu bon kenn du ko roy di lu bon kenn du ko toppandoo kenn du ko roy incha allah. Mm-hmm. oustaz lan parce que boo xoolee ñu ñëpp ay ñoom ñëpp ay ñoom ñaar ay kilifa la ñu ñu jiite ay mbooloo ah nekk ci réew mi loolu lan mooy loolu kii kilifteef. kilifteef daal ku la gënul Pape Serigne Mbaye Mansour nee na. Mm. ku la gënul mënulaa yilif ku la taniwul du la yilif ku la gën jikko moo la yilif ku la tane moo la yilif mm. waaw waaye koo xam ne tanewu la mm. gënul la jikko mënulaa yilif ku la gën jikko rek moo la gën a mën moo la mën a yilif mm-hmm. inna akramakum inda mm-hmm. yàlla nee na ki gën a tedd ci yéen mm-hmm. kooku moom moo gën a ragal yàlla ci yéen kookoo leen gën ki gën ci yéen mooy gën a ragal yàlla mm-hmm. kon nag ki gën a ragal yàlla kay mu jeex na mm-hmm.